salaam salaam gars yi ki nga xamante ne mooy Juan Branco nekk avocat wu président Ousmane Sonko mi ngi actuellement au Sénégal parce que ñoo na fekkee si conférence bi nga xamante ne avocat wu président Ousmane Sonko ñu ngi ko doon def ki nga xamante ne mooy Juan Branco mi ngi Sénégal dafa ñëw non seulement pour soutenir président Ousmane Sonko mais aussi dafa ñëw soutenir peuple sénégalais yéen ñëpp xam ngeen ni ñi nga xamante ne ñooy parquet de Dakar dañoo ne woon ñu def ko mandat d'arrêt international. xamante ne mooy Juan Branco nekk kenn ci avocat wu président Ousmane Sonko kenn jàpp ko am na ñu doon publier que jàpp nañ ko jàpp nañ ko jàpp nañ mais ki nga xamante ne mooy Juan Branco kenn jàpp ko wasalaam.